dëggante ñaari réew yi nga xam ne dafa mës a Sénégal ak Côte d'Ivoire dinañu laale ci lu soxla huitième de finale Coupe d'Afrique de Nations loolu moo tax groupe d'initiative pour une remédiation à l'africaine ci njiitalu président bi amal benn déjeuner de fair play boo xam ne dajale na supporters sénégalais ak supporters ivoiriens yi nga xam ne Dakar la ñu nekk. li ko sabab nag dañoo bëgg ñaari réew yi xam match bi warul doon loo xam ni daf leen di féewale. nag ñu ne comme organisation la bu buy dox jàmm du ñu bàyyi ba mu am parce que dañu am ñun li ñuy wax alerte précoce moo tax tey ñun dañ ko euh, dañu dajale rek sénégalais ak ivoirien ñu añandoo euh, waxtaan ci benn restaurant bi xam restaurant wu ki ko moom Côte d'Ivoire la nekk nekk fi Dakar pour ñu lancer un message pour ñu xam ne football la te football kese kese lay doon. ci déjeuner de fair play boobu nag groupe JIMA dafa jokk ngir gën a rataxal diggante bi ci ñaari communauté yi. ñu gis ni. football bi boo waxee rek dañ naan football la football la xëy na mais dañu gis ni football mi ngi bëgg ñetti at a ngi nii ñun ñuy alerte wax def leen dànk parce que gis nañ li xew diggante Cameroun ak Côte ñu dem ba yàq euh, fi nga xamante ni fa la supporter Cameroun yi nekkoon. naam ku ci nekk bëgg na dëkkam gagné bile match. supporter sénégalais ak supporter ivoirien yi bëgg nañu wéyal li nga xam ne moo di brassage culturel bi. dëkk bi fu mu toll nii dafa xaw a jaxasoo ñoom tamit jot nañu dund. ay ay événements yu yu yu yu metti donc bu ñu bu bu football indi indiwaat euh, yeneen situation si entre les deux pays. le football a cette manière là de rassembler. ku ne football rek ne booloo ne diggante yi ndaxte jàpp naa ni ab moment bu am dayo la ngir ñun ñi bàyyeekoo ci Côte d'Ivoire itam ak sunu mbokk yu faree fii ci Sénégal. et pour nos frères sénégalais. Sénégal ak Côte d'Ivoire ñaari pays frères la. dañoo war a génnee passion yi te profiter ci bile match nga xam ne feet la ci diggante ñaari réew yi.